waaw mun nañ ne euh, tey si suba euh, visité nañu euh, contour global nii si ngoon ñu gis toobeen mun nañ ñu mun du xel bi dalul comme nu mu nu ñu bëggoon mu dal waaye lu ñu fi dis quand même dal na xel ndax xam nañ ni dafa am leen loo xam ne mooy loo séentuwul ndax nit nit la rek day prévoir rek yooyu waaye luy ñëw si kanam xamu ko projet nag noonu moo koy impacté donc mais ñoom jël nañ wax nañ ni daal jël nañ seen matukaay lu ñu si dis ak rapport yi ñu kii jël nañ seen matukaay ak euh, ingénieur de suivi ak chef de projet bi ñoom jël nañ quand seen matukaay ñoom ak donc maan pour que vraiment donc euh, outils yi muy donc centrales yi ñëw si réseau bi pour pouvoir donc impacter la qualité de service waaw loolu moom euh, de ce point de vue xam nañ donc suñu xel donc dal na ñaan suñu borom rek mu mottali un peu donc. tey tey si suba rek. Mhm. ñu na waaw courant cher na moom xam <laughs> ku nekk moom mun nañ wax ñëpp cher na waaye courant cher na il faut le relativiser parce que nit ñi habituellement su ñu amee donc facture soixante mille si mois bi rek nee nañ donc cher na waaye soixante mille soo koy donc diviser par soixante jours ça fait donc mille francs par mois mille francs boo xam ne sa par par par jour. 1000 francs boo xam ni di nga euh, sa jën yi du yàqu ah euh, di nga mën a seetaan télé di nga mën a nu mu tëddee naan ndox mu sedd ak yooyu ak loo xam ne day jëriñ kër gi yëpp ah loolu soo ko doon comparé ak sax yeneen euh, façon yeneen consommation yi comme si donc yeneen service yi da ngay gis ni en fait nit ñi dinañ dépenser lu ëpp sax mille francs par jour pour mën a am donc service yooyu donc courant bi cher na certes. ndax objectif donc euh, état bi ak objectif donc euh, autorité les autorités de Senelec mooy diminuer courant bi ngir supposons donc industrie mun a donc euh, am seen facteur de production yoo xam ne dafay diminuer wu domestique yi également mun a yokk seen consommation donc lii dafa nekk projet yoo xam ne quand même day impacter PSE bi ah ndax soo amee qualité de service am donc coût yoo xam ne à terme ah dina wàññeeku loolu dafay impacter croissance beeg yooyu yëpp ñoo siy jëfandikoo maintenant nag dina teel dina teel di wax ni projet bi su ñëwee rek coût bi dafay bese parce que luy bese coût ah avec donc dépenses yeeg charges yi projet yu mel nii yu bëri ñoo koy def bii dina si contribuer tuuti waaye balaa donc contribution bi donc di mag ba nit ñi mën a mën a gis donc euh, fruit yi. kooku il faut donc euh, centrale charbon bi nga xam ne DG bi relancé na ko mois d' octobre passé ñëw beneen ñëwaat waaw ak yeneen. Euh, waaw yooyu am na yenn yooyu jëndal wala Africa énergie ak yooyu yooyu suñ ñëwee kooku moom dina impacter si toutes les conditions quand même sont égales par ailleurs c' à dire su fekkee ni actuellement nii on raisonne sur la base des conditions actuelles ëllëg nag moom kenn xamu ko waaw ah. donc loolu moom mooy yéene ñëpp. koppar yi nag moom euh, kooku moom am na man euh, daanaka euh, valeur bu ñuy kii daal mooy à peu près autour de quatre vingt milliards xam nga quatre vingt milliards <laughs> xaalis su bëri la te lii muy def puissance bi day contribuer de waaye puissance bi daanaka su fekkee ni temps de déroulement projet bi mooy deux ans deux ans presque soo ñëwee par exemple deux ans damay installer centrale cent presque donc sooy pare fekk na ni yow soo ko su ñëwee si réseau bi daanaka euh, du du dafay satisfaire rek accroissement demande bi central donc à terme centrale 100 la soo compter deux ans deux ans soo amee par exemple demande bi day yokk 50 méga chaque année ah donc centrale bi su paree rek presque donc euh, yow day mel ni donc defoo dara te loolu 80 milliards loolu mooy expliquer également pourquoi donc coût électricité donc cher parce que defar centrale moom moo njëg yi ñoo cher. équipement yu muy kii moteur yi ngeen gis ak yooyu yëpp donc moins cher moo tax coût électricité euh, fonction produit courant dafay cher parce que euh, nature investissement bi la xam nga 80 milliards nit ñi suñ ko déggee dinañ yaakaar ni donc loo xam ni euh, daanaka mën na régler problème lépp waaye 80 milliards si domaine énergie lu tuuti la ah te lii production la rek maintenant am na yeneen segment si si Senelec yoo xam te ne waaw dëkk kaw yi mun na leen impacter parce que bii dafay injecter si réseau interconnecté yi te dëkk kaw yi yu nekk par exemple ci réseau interconnecté yi également su augmenter qualité service réseau interconnecté dëkk kaw yi dañ ciy bénéficier donc loolu dina kii dina moom malgré que dafa nekk fii euh, ba Ndiaye waaye gis ngeen poste boobu ñu visité euh, visité léegi foofu donc lay jóge bi jéem jaarale courant bi pour mu dem donc si si si si si si kii bi si si poste yi donc euh, dafay impacté ku nekk si réseau interconnecté waaw thank hmm.